الحمد لله رب العالمين ñu ngi sant sunu boroom te di dellu santale sunu boroom Cheikh Mat Bamba dellu di santale sunu boroom Cheikh Massamba te di sant sunu boroom تدي جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بري يكتي سنو كادني الحمد لله رب العالمين جرجفتي شيخنا احمد الخديب الحمد لله رب العالمين جرجفتي شيخنا احمد الخديب الحمد لله رب العالمين جرجفتي شيخنا احمد الخديب نيجي جك يكتي سنو كادو جمالك شيخ منتخب مكه di ko ziyaar si turu taalibe Cheikh Massamba yépp ak si turu waa kër Cheikh Massamba yépp Serigne Cheikh dana ci dellusi waaye dama bëgg ngeen xam ni sama kàddu gi kàddu gu ma Serigne Cheikh jox la pour ma dalal gan yi sargal leen te bala noo dalal kenn lu noo jëkk def mooy sant sëriñ tubaa soo santee sëriñ tubaa ba pare jublu ci cheikh muntaxa mi nga xam ni mooy cheikh mat bamba soo jigee si cheikh muntaxa jublu ci sëñ ma moor anta sali mi nga xam ni mooy cheikh ma sàmba kon cheikh muntaxa ak sëñ ma moor anta sali yàlla nañ fi yàgg lool te wér seen naal yi naalu bi ak naal yépp rawatina naalu juma daaru karim gi seen naal yooyu yàlla nan ko mottali ba sumb yeneeni naal ñun de waa kër ma sàmba ñu ngi dagaan ma sàmba mu jébbalanu Cheikh Mat Bamba yàlla na sëñ maam moor ak gële jumaa ji ba la Cheikh taxaa defoon sa daaru karim mu ñëw def la mu defoon sa mazalik mu ñëw def ko fi ci daru Karim maa ngi nuyu délégation bi seigne Ma Mor si turu ki nga xamni ni kilifa jataay bi dana ci delu ci waye ngeen may ma mu ay yu ma dalal bu baax le ministre Galoba.

te su xolu Cheikh ma sàmba seddee wóor na ma ni ma xolu Cheikh Mat bàmba dana sedd te loolu mën na yëwanal mbiram yépp maa ngi nuyu ci mu àndal di sama xarit di sama sëriñ Cheikh Abdou ñépp xam sama diggante ak moom ñëpp xam sama digganteeg soxna May ak sama digganteeg soxna Bali moom xam na jëmm yooyu nan lañ tollu sama xol maa ngi nuyu bu baax la gouverneur le gouverneur moom tur bu am solo la am moo tax sañuma ko kalumuk Ibrahima sant Faal su dul woon Cheikh Ibra Bamba réer ba ñibbi yàlla dimbali nañu ba Bamba ñëwul réer ba ñibbi Cheikh Ibra war nañu kuy Cheikh Mat bàmba te ki démb rekk Cheikh Ibra wane na ay kéemaan si dëkk bi si ndigalu Cheikh Muntaxa sëñ am di na fi kéemaan yu rëy kon Cheikh Ibra moom mënul ñàkk si yoon wi eh, eh, gouverneur maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama xarit sama doomu day Isma Jum di nuyu bu baax El Hadj di sama xarit di sama wëllëre te di jottali si jëmale ko si Abdul Ahad Ka ñu ngi leen di dalal bu baax ñun amuñu lu dul ma sàmba te nag seen taxawaay sànq ba tey ngeen toog fii ci bâche bi lu ko indi lu ko lu tax loolu am nit ñi dañu tàmmoon gannaaw timis walla gannaaw gee di def cérémonie waaye xam naa ni déwén suñu insister ci appel yi wax leen ni leen tàkkusaan la toogaay bi du yàgg nii te baax bi dana mel na mu war mel ndax dëkk bi fees na dell nit ñi dañu nekk ci biir dal yi di saafonteeg seen sëriñ ak di def ay ziyaar waaye seen toogaay bi wan na ni li ngeen di dox ñor na leen ngeen taxaw bu baax jërë ngeen jëf jëf président Macky Sall bi leen yónni jërë ngeen jëf délégation bi yépp nag maa ngi leen di nuyu dama leen mënul mën lim ñoom ñépp waaye xam naa ni le ministre galo Ba mi jiite délégation dana leen lim waaye bàyyiwul ci kenn ma ñëw nag si ki waral bés bi ki waral bés bi mooy Cheikh Massamba Cheikh Massamba mooy ki sës rëkk ci sëñ Touba ma sàmba mooy ki nga xam ni dafa gane ci àddina gannaaw ba waajuram làqoo moom rekk la yàlla may sëriñ tubaab balam koy tudd mu dem ni def leen nànk ma laaj waajuram mu jox ma tur waajuram a nga sa biir bàmmeel di joxe tur kooku loolu mooy wane daraja Cheikh Massamba ma Massamba suñ tuddee xasaay yi di rekk loolu jar na ñu xam ni Cheikh sàmba dara jaam dafa kawe suñu tuddee ni Cheikh Mat Bamba dafa nekk Cheikh sàmba toogal fii lu ñëw xewal bu ñëw nga am ci sa cër nga xam ni Cheikh sàmba séddu na ba mu mat sëkk jataay bi yàgg na waaye su leen wax lu bari Cheikh sàmba damay wax ni Cheikh Massamba sëñ Tuubaa dafa ñaan boroomam yàlla may ko rakk ju mel ne Cheikh Massamba mu sàkku ko yoon bi Cheikh Massamba di gane si adina moom moo ko ba Cheikh Massamba gane si adina nek si ay loxoom nek si wetam di ko defal loo xam ni daawu ko nangu keneen ku ko def ma dégg na si ay mag yu nettali nii sëñ bu mag bi wax na ni gannaaw moom mu tànn Cheikh di ko liggéeyloo ci xasaayid yi xasaayid yi seen bopp ñoo bëgg ma sàmba di leen jëfandikoo kon kooku cëram foo ko natt rek weesu na Cheikh sàmba ñun si la ñu judd si la ñu yaru yàlla dimbali nu boole noog sëñ ma sàmba may leen ma rek ma yëkkati sama kàddu jëmale si jëmm jooju nga xam ni ànd nañ lu ëpp juróom fukki at lépp lo xam serigne defal naka talibé defal na maka lépp lo xam ni defal nako dom defal na maka lépp lo xam xarit defal nako xaritam defal na maka ka lima kay lima kay résumé rek moy koku defal na ma lépp damay ñaan fuma ma toll te néew na ma bés bo xam defuma ka ay yoon yoon yàlla na ma ko Cheikh Massamba fayal fu mu toll yàlla na ko ngërëmal cheikh ma sàmba cheikh mat bamba ngërëmal Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sallam ak yërma ne borom bi di fayam yàlla na ma yàlla dimbali sama giiru dund mu may ma xel moo xam ni am taxawaay boo xam ni daanu xam ni mooy amul fayu cheikh Mustafa Masamba. sàmba moo tax ren bi defee le premier marse bi nga xam ni sëñ dama daan dama ko daan def cant ndax wax ju rëy ju ma sëñ Muntaxa wax wax jooju nag def ma ko medaay ba sunu jëf ak sunu wax ak sunu taxawaay day wane ni rek ñun taalibe sëñ Tuubaa kat suñu demee ba yàlla may nu ki jiite yoon wi taxaw yëkkati seede ay yoonu yoon sunu bëgg sëñ tubaa war nañu góor góorlu tàllal suñu loxo lool euh, sëñ Tuubaa defal nu loolu sa jamono sëñ Saaliw laa waxoon sama sëñ Saalix nekk Mbàkke bari na ñoo xam ne su ma gisee du nu xalaat ni lii laay liggéey du nu xalaat ni lii laay def lu noo xalaat mooy kii taalibe murid la kon dimbali ma nga ñaanal ma ba duma wax walla ma jëf loo xam ni daanu jaar sama jëmm ji di sànn baat yoon wi min ma tàllalal ma ñaanal ko defe naa ni ñaan googu maa ngi si te di dolli di wax ngeen dollil ma ñaan googu ndax kat loolu sas la bu rëy si man sëriñ cheikh ñi ngi lay di la mat nga li nga doon don doon don doon porte parole u sëñ ma sàmba sëñ ma li la la jaral man soo gisee ma ma jël jublu la bu loo jublu la jublu bu wóor mooy dama gis cheikh ma sàmbalum la jaral te wóor na ma ni ma amuloo lenn loo xam ni man na tax doo taxawu sëñ ma sàmba sa kemtulaay kàttan daa ko jox sa ñàq jaa ko jox sa doole daa ko jox sa alal ba mu jeex tàkk loolu nag wax dëgg yàlla jaax na ñu seede ko ci mbooloo mi noonu nga mel noonu la sa rakk yu topp ci yow mel ndax kat ku am ma sàmba am nga koo tiitaroo am nga koo xam ni mat na li mu doon kon war nga mën jël ma sàmba def ko sa xol laxasul liggéey laxasul liggéeyal Cheikh Massamba maa ngi ñaax sama mbokk taalibe yépp ni leen ñun de bu nu bokk si ñi nga xam ni danoo ñàkk kilifa ñun danoo am kilifa kilifa gu mat kilifa bu leen dégg si yenn yi senegal nit ñaa ngi waa jaaxle ndax kat référence moo amatul te dëkk boo xam ne danga am Cheikh Mat Bamba Cheikh Mat Bamba li mu daj yépp xeex ak tubaab bi sa diggu dooleem tubaab bi yóbbu ko déporté ko exilé ko tuba bi ku bu mas exilé delu ci siwuloo kenn mo delu ci ci histoire su keneen gisee ni am na keneen ku delu ci ñu wax ma ko muy Cheikh Mat Bamba koku mat na référence su amee kilifa daa xam ni am na noo xam ni doo ko doxale si dëkk bi maa ngi woote jàmm si dëkk bi jàmm jàmm bu leen fàtte ni sëñ Tubaa nee na fii si àddina ak fa nu jëm gisul lu fi lu si gën jàmm nee na jàmm moo gën ci àddina bi moo gën ci àllaaxira ku amul jàmm doo dara doo jàmm yàlla doo tal defar réew doo def dara nunu wut jàmm yàgg naa ko wax man bañ naa ba mu doon yëngatu si wàllu woowu maa ngi tudde woon li may yëngatu jàmm ak xéewal jàmm rekk laa gëm maa ngi woo ndaw ñi ni leen nunu dundal jàmm si dëkk bi maa ngi woo acteur politique yépp ni leen dundal leen jàmm benn lam du yëngatu benn lam du yëngatu il faut euh, yëngatu ba mu mën doon ay lam kon nag képp ku fi yee fitna nan ko bàyyi mu yee fitna ñu ñu yëkkati jàmm dana mujj fitna boobu su xëppul ci kaw dana ko teg ci suuf lëkk bi ñoox nanu lool dëkk bii dëkku Cheikh Mat Bamba la sëñ Cheikh Sidi Maxtaar waxoon na ni fii du tàkk mukk ku ko bëgg tàkk yaay tàkk loolu moo ko wax du sama wax kon nag ñëpp fàttaliku te réew soo ko bëggee jàmm ngay jëkk jiital soo koy wut bala ngay def lenn wax ji nag jëmalewuma ko si kenn waaye dama bëgg rek fàttali nit ñi li nga xam ne mooy njariñu Sénégal xam nga man yàlla defoon na ma nekk ministre des affaires étrangères Sénégal lu tax ñu nawoon ka amul woon petrol, pétrole or bi commencé wuñ ko woon exploité bi ñu ko commencé exploité yàggul bi ma ministre des mines la waaye Sénégal lu xew nu jox ko investisseur di Sénégal booba jàmm ji fi nekk la jàmm rek moo nu mën jariñ looloo tax ma insister si te fan li nu dund metti na si deru Sénégal maa ngi leen di ñaan nanu dellu si suñu xel rek jariñ Sénégal waaye nag si bés bi laay teg sama loxo jël ko jébbal ko Serigne Cheikh mu jébbal ko sëñ Maam Moor mu jébbal ko Cheikh Muntaxa ñu ñaan ba jàmm am si réew mi ngëm naa ni bésu Cheikh ma Massamba bi liñ fi wàcc si ay kaamil liñ fi jàng si ay xasaayid ku fi ñaan jàmm réew mi dana am jàmm te dana naat yàlla nañu ko yàlla defal si daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si barke Cheikh man Bamba si barke ma Massamba si barke sama sëriñ sëñ ma sàmba jërë ngeen jëf